yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. am ak délégation yi mu àndal yëpp ñu leen am mbégte lool ci ànd bi ñu àndal yéen ci liggéeyal seen Tuubaa Xaadimu Rasuul di am mbégte bu baax a baax nag ci daayira mu xadimaat xet moom ci li muy dox ndax euh, murid yëpp lañ fi nekkal lii dafa nekk loo xamante ne murid yëpp war na wàcc di ko liggéey kon bu amee ñenn nag loo xamante ne nii wàcc nañ di ko liggéey te bu mën a waaye leen nekk soxla bi ci sedd daayira mu taxaw ak waa sax dañuy wuy si waat pour yi nga xamante ne mooy mu xadimaat xëpp na te mooy xëpp na muy liggéeyal Sëriñ Tuuba dañuy wuy si ci biir liggéey boobu ci pas-pas Sëriñ Saliou boobu nga xamante ne mooy doomu Sëriñ Tuuba ji mujj ci kaw suuf si fii nekkal fi Sëriñ Tuuba mu tudd tur bi sant leen liggéey bi ñu ñu ànd yéen nga xamante ne mën nañu sant seen liggéey takkusaan timis mu seen sant mu liggéey ànd ak yéen si yéen ànd doom ñaan suñuy a baax mu mel liggéey yi ñu def ci biir dëkk bi ak fépp foo xamante ne kër Sëñ Tuubaa ma ndax li euh, nga xamante ne dañoo def ne waxtu jot ci fi nga xamante ne dañ koy jël ci suñu compte dañ ko siyaare ci toogal Sëñ Tuubaa mel ne Cheikh Mamadou Mokhtar Moustapha ko bi ko bëggee siyaare dafa tombé wan ak bu fa diir boobu yàgg ñu laaj ñuy xamal yëngu ba xamante ne am na fii jumaa yi ay gàllankoor yu ndox yu ko ñu jël addiye joojee ñu doon yóbbu sëriñ Moustapha ñu gis indi ko jënde yoo xamante ne moom lañ def fii jumaa yi. ci woo ko day seet luñ ci dolli waaye wàññi ko. ndax Moustapha nag ànde noonu la ñuy doxee mel na bu màggal Tuuba jubee dañuy génn ci seen kees bàyyi seen liggéey bopp génn seen kees seen xaalis bu fi yàqu yi lu mën doon duñ ko laaj kenn dañuy génn ci seen bopp ko def xam ne lañ ko def noonu lañ ko defee ba ko ne àllarba ji nga xamante ne moom la Cheikh Mouhamadou Moustapha liggéey la seen Tuuba ci jumaa ji ñu ko béy xamante ne sëñ Moussa Ba dafa waxoon ne am di saxal ndigalul bàyyam jumaa ji taxaw ñu taxawal waaru moom gis-gis boobu nag lu tax am waar wa saxaada am ba tax ñu wëlbatiku far àllarba ju jot fas yéene génne seen wàcci liggéey ñu doon amal seen bopp yëpp génne seen ci dëkk bi ni ko defee ay section mu juróom benn section ci biir dëkk bi noonu lañ ko def ngir ñu gën koo mën a jàpp ñu def ko juróom benn section ci biir dëkk euh, àllarba ji jot nag ñu génn di ci barkeeloo àllarba yi mag ñoo ñee ñu doon liggéeyal seen Touba ñu barkeeloo ko ci nga xam ne gox bu ne muy ndaamaatu muy daarul ñu nan muy daarul lu nanaan muy daarul Kudus muy Gede muy Saam juróom benn section la ci biir dëkk seen njiit yëpp ñu ngi taxaw fii ci ginnaaw àllarba ji jot danañ bàyyi liggéey yi ñu amoon yëpp dugg ci biir dëkk bi fu ñu gis taux bu yàqu wala fenn fu am gàllankoor ndox danañ ko defar ba foofu yëwal buñ koy jël seen alali bopp sax def ca ñu am ay oto dañuy casier ci seen garage duñ ko laaj kenn ñu amul oto dañuy dañ leen di luyoo oto dañuy ànd ak ñoom dem foofu fu yàqu-yàqu nekk danañ ko defar ba mel ni ñu ko bëggee ndax xam ne sëriñ bii nga xamante ne moo ñu ko santoon du fi jóg te liggéey sëñ Tuubaa bi ñu fi kon noonee lan ànd ak yéen parce que yéenee ànd ak Moukhaddamatoul Khidma nag ba fépp foo xamante ne yitte woon na fa problème rek muy muy assainissement xamante ne itte woon na ko ko ñoom ñi ngi taxaw ay borom xam-xam lañ yoo xamante ne foo xam-xam egg rek seen bos yàgg na fa waaye xam nañ ne Sëriñ Tuubaa lañ jox seen yëpp seen lépp doon lépp loo xamante nii nit ñi koy am rek xam nañ ne Serigne Touba moo ko am ba doy kon fii ci dëkk bii lañ ko fas yéene ànd ak yéen te fas yéene ànd yéen ànd bi gën a gudd gën a yàgg ci barke Seex Xaadim fas yéene ànd ak yéen ci liggéey Serigne Touba fu ngeen ko yittewoo rek mu xam ñu ngi leen yaa xayra dayfin ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi